wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokk yi nga xam ne ñoo baaxoo dañu topp waxtu wu ne su weeru wolof amee ñaar fukki fan ak juróom-ñeent fii ci jumaa ju mag ji nga xam ne moo nekk ci dëkkub Cheikhuna Ahmadul Khadim di Touba eh, kuréel bi nga xam ne ñoom la sëriñ bi dénk lépp lu jëm ci wàllu weer wi te ndigalul sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa Mbàkke ci njiitul sëriñ Mahamadul Mamoun Bousso ànd ko ak waa daayira Muxaddamatul Xidma waaye ànd nag ak sëriñ Abdou Diop imam mi nga xam ne moo yore kaddu commission bi Eh, saa yu weer wi amee ñaar fukki fan ak juróom-ñeent danañ eh, eh, ñëw ci rajo jumaa ji wax ne sëriñ bi nee nañ séentu weer wi te ko ci xam lu wér nga ñëw yëgle ko su suñu noppee itam ku mel ne sëriñ Bassirou Mbacke mu sëriñ Abdoul Khodos dana nekk ca Daarul Moxti dox suñu diggante ak waa Tiwaawan waaye nag ku mel ne sëriñ Modou Mbacke si jiite représentant xalif général des mourides yi nekk ci région yi ñoom ñëpp danañ ànd ak ñun su ko defee lépp loo xam ne ruuse na fi rek danañ ko mën a jotale en direct ci ngeen di ko dégg kon ginaaw boo xam ne tey jii la gaaw yemoo ak ñaar fukki fan ak juróom-ñeent gi ñu doon séntu weer wi muy tey di séntu bu njëkk eh, ñu jeexal weeru safar wala dëgmal weeru eh, guddig yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kàddu yi nga xam ne moom la commission bi tënk fii ci Touba dañuy bàyyi sëñ Abdou Diop mu jottali leen ko. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ni ko sëriñ lu Garas si la waxee rek noonu la noonu lañ ko baaxoo def mu ñaar ak fan ak juróom-ñeent ci weer wu ne danañ dikk ci jumaa ji yéene fi ne sëriñ bi nee nañu séentu weer ci waaye xam nga ñëw yële ko buñ ko defee ba noppi nag dañuy génn nag toog ci soow nag di séentu weer wi ak di taatam euh, xibaar ci gox yi ban ko defee ba fii na nga xam ne nekk nodd nañ gee lañ <coughs> te gisuñu leen gisuñu fenn fu nu wax dara wala nu gisal ko suñu bopp kelan daal di jokkoo ci ak kër sëriñ sëriñ Cheikh Mouhamadul Mountakha ba mu ne loolu doy na kon ñu xam kon ñu jàpp ne suba ci àllarba ji mooy motti li <coughs> wi léegi ginnaaw suba mooy doon benn fan weer weer bu <coughs> weeru weeru ñu xam ne kon weeru màggal gi maanaam tey ji suba mooy fan weerel fanam di àllarba waaw mooy weeru safar wi bu ko defee ginnaaw suba nag mooy benn fanu weeru gàmmu gi na ko ñëpp xam dañ ñaan suñu muntaxaa mu yàgg fi bu baax a baax a baax te te na te ànd ak wér ba li mu yéene lépp liggéey mu liggéey ko te na te na ànd koog moom bi yaay Seexul Xadim asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa maaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu kon ñu jàpp ne benn panu alxames lay doon ci weeru gàmmu ñu jàpp ne kon gàmmu gi dimanche lay doon incha allahu rabbi mel na ne day daal di dëppoowaat ak guddig yonent bi sallallahu alayhi wa sallam guddig eh, altine lay doon incha allahu rabbi yemoo ak fukki fan ak benn di guddig fukk ak ñaar kon alxames mooy doon eh, benn fanu weeru gàmmu alarba eh, ji dañ koy mottali fan weer lii mooy li nga xam ne ruuse na ci jumaa ju mag ji ñu àndoon ko ak waa daayira muxaddamatul xidma wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.